leen wax ne danoo takku comme ni ma ko waxee la fois passé danoo takku ne takku naanaa taxaw temm nag ci képp koo xamante ni bëgg ngaa suuxal parti bi fii ci département bu Mbacké ndax munoo ni Touba te néewoo Mbacké munoo ni Mbacké Touba te monde rural bi te dafa am loo xamante ni département bi da koo manqué muy ñuy boole ndax kenn ku nekk jàpp nga ni boo boolee keneen rek kooka dalay suufu déedéet am na ñoo xamante ni xaaruñu parti bi ci seen dépense dañuy liggéey avant di liggéey ba léegi kon ñun xaaruñu sunu dépense ci parti bi te bu naree taxaw di jàkkaarloog parti bi di ko wax lu dul dëgg ñun ñu dem toog ci sunub liggéey di dundal suñu bopp di dundal suñu njaboot. fii ñi fi daje ñëpp kenn ku nekk bu xëyee am na ci lu mu nekk kon ñun danoo dëkk jógaat nag taxawaat nag ci département bi bëgga a taxawit beneen taxawin ak beneen doxalin fépp fu nit nekk ku bëgg Karim Meïssa Wade baa nga bëgg Laye Wade dina la ubbi porte yi nga dugg si te yow mi fu mujjee dugg ak ki fi njëkk a dugg yéenay bokk yam. man la Fallou Gueye coordonnateur Karimis international dëkk fii ci Mbacke Bawal nekk euh, PDS ci Mbacke ah di ci liggéey bu yàgg ba léegi ah ku ne xam ne nag sunu mbooloo mi ñu dajee tey jii bu fekkente ne loola am na. liggéey la muy liggéey bu yàgg ndax fi ñu commencé suñu waxtaan mooy Touba ak Mbacké ku ne xam na ne solos PDS la woon lu fi masaanam Abdoulaye def ko daan gañee da daan tëdd sax di nelaw waaye élection yi weesu dafa am lu fi weesu te xew fi te ñun Touba ak Mbacké ñu def ci ay jàngat xam li tax loola dal ñu ci dëkk bi dañu am coalition wàllu Sénégal muy compétir ak yeneen coalition yi ñu investir ay nit ñu am jom bëgg seen bopp xam parti bi di liggéey ànd koog ñi nga xamante ne ñoom lañ amaloon yaakaar ngir ànd ak ñoom ak li fi xew lépp a ah, ñu dugg ci campagne yi di ci dox suba ak ngoon di ci xeex suba ak ngoon yàlla def campagne yi ubbi ñu bàyyi liñ jàppoon lépp ñëw ànd ak ñoom di leen jàppale amoon yaakaar nag bu baax waaye parti bi nga xamante ne ñoom ñooñu ñu investiroon di walu Sénégal Touba fii ki fi gañ amul woon sax xalaat ne moom war na mën a gañ élection yi fii muy département bi ñoom seen coalition ñëpp ñëw nañ ñëpp bàyyiwun benn leader ñëw fii ci Mbàkke ci boulevard bi defi seen meeting boo xamante ne àdduna bépp ñëw fekk leen fi mais ñun suñ coalition amuñu loolu. ñu dañoo investir yoon wi métti lool xaaxaam yi bëri lool ñuy dox chaque jour ak lañ ci rencontré ay jafe-jafe te amuñu kenn koo xamante ñëw na sax ñu xam ne ñii parti bi sax ñor na leen moo leen fii teg ndax nit su fekkee daf lay jàppale di la jàppale ba benn bis nga bëggaat ka nga xamante ne mooy tur wan doon jàpp muy maître Ablaye Wade wala Karim Wade au moins que ñi mu fi investir mën nañ seen seen seen seen wàll mais ñu ñëw. jàpp ci campagne loolu day tax sax nit ñi gën a am motivation ngir voté ji ndax votel koo la ku la naan du ma votel ma gisut donte suma la bëggee sax dama naan dama votel ku ma gisut loolu ku nekk ay jàngat loolu am na ci élection yi. ñun nag ñu nekkoon benn kuréel boo xam ne dañoo bokkoon ci benn euh, union muy ay responsable yu ko mat ak ay mouvement yu takku yu bari biñ defee seen jàngat ci élection yi rëq-rëq yu bari am. ñu ne lan moo war a tax PDS di fi ñàkk élection yi chaque jour ñu waxtaan lëlu fi lëlu bu yàgg di ci waxtaan chaque jour tey nag ñu ne liñ doon lëlu nañ ko génne wax ko askan wi nga xamante ne ñoom ñoo fii ñëw waxaale ko parti bi muy diggante Touba ak Mbacké ak communauté rurale yu ko wër dañoo laxasaayu ñi ànd ak ñun créer benn union boo xamante ne union a ah, du département de Mbacké maanaam union des karimistes authentiques ñi nga xamante ne ñooy liggéeyal parti bi te kun ci fëggoon tey tey tey ah ne la ayco nga ne ñoo ñooñu lañ dajale fii ah créer suñu union. muy ay responsable yoo xamante nag ñoo leen fi woo pour wax leen ko waxaale ko waa parti bi di xalaat fan yi ci ñu jëm ndax koor gi ñu dugg dafay mën a pour lu bëree bari ñu bëggoon suñu koree woote. suñu assemblée générale boo xam ne dañ koy def pourquoi pas ci boulevard wala ca gaar ba ndax xam nañ fi ñu jëm te lii ñu dëgmal di ko liggéey bàyyiwuñ kenn fu ne danañu fa dem koñ koñ yi gën a récurrent sax danañ fa dem pour que wan leen suñ bëbët wax ak ñoom ndax PDS war naa mën a am li mu amoon fii ci PDS ci dëkk bi ci Touba ak Mbacké loolu li koy may mooy ñu boole aw say doon benn gëm-gëm xeex ndax ku ci ne ni ko ñi jël ah, parole yi. fii ñëpp ay responsable lañ kenn du ci xëy taxaw kër kenn defa laaj loo dundee ku ci ne da ngay bàyyi say activité ñëw ngir parti bi ñooña nag su ko ab parti amee cib dëkk war nañ leen a cëral war nañ leen a xam war nañ leen a xàmmee xàmmee gi mooy lépp lu parti bi di def ci département bi bu mënta jaar ci ñëpp it ne jaar ca ñooña laaj leen lan ngeen xalaat ci lii nga xamante moom la def ab liggéeykat su ko nit di def da nga koy cëral da nga koy yëg waaye di liggéey liggéey boo xamante ne métti gi métti ah lu ñëw it ñu jaar sa kaw jàll boobaa day métti te ñi nga xamante ne bàyyi nan wala ñu dem ci yenn parti yeneen coalition gënuñu ñii ñu fi bàyyi waaye ñi am nan jomi rus na noonu wax li may wax waa koñ ba mooy su ma jógee PDS fu ma jëm loolu nag su ko nit defee da nga koy yëg da nga koy cëral ñi ngi lancé appel ci Karim Meïssa Wade mu jël ay responsabilités ci ñi nga xamante ne ñoo ko bëgg di ko jàppale ci département bi ci Touba ak Mbacké mu yëg leen faale leen yëg nañu sax waaye bu ñu waxee loolu day am loo xamante ne su manqué lu mu tuuti tuuti rek ki nga koy defal mën na koo bañ a gis mu gën a dooleel ñi nga xamante ne ñoo nekk ci diggante Touba ak Mbacké ñi xam ne duñ ko wor ànd ak ñoom ñu liggéey ndax ku ne xam ne élection législative yi mi ngi jëm suñ kanam te pare nan ndax bu ngeen gisee lii nii fi daje tey muy ay responsable ñoo xam ne dañoo waroon a mer toog ñëpp gën a takku ñëw ne dañuy ànd pour liggéey doon benn loola parti bi waru ko caaxaane war na ko yëg war na ko reconnaître ah di wax rek beneen bi mooy li nga xamante ne mooy ah, parrainage ku ne xam na ne ñi ngi koy lancé ñi naan duñu dem ñi dem mais ñun pare nañ waaye dañoo bokk ci dëkk bi ba Macky Sall bu defee loo xamante ni neexul population bi neexul askan wi suñu parti day jóg taxaw ne kat lii ànduñ ci tey ànduñ ci léegi waaye bu ñu fëggoon tey ñu jox ay parrainage yoo xamante ne dana mat ci Sénégal gi yëpp. li ci des mooy gën a booloo gën a takku gën a liggéey ndax PDS ci Touba ak Mbacké du ñun ñii dong ñoo ko ñoo ko ŋànk waaye bokk nañ ci li nga xamante ñooy locomotive fii doxalal parti bi fii teet yi nga fii gis yépp ku ci nekk boot na loo xamante ne ah su ko tegee ci table ji kat dana xam ne lii lu am njëriñ la lu rey la. Euh, ci ci liggéey boo xam dañ koo bokk ak combat boo xam ne ñoo ko bokk muy komba boo xam ne yëglu woon nañ fan yee passé ma koy répété waat wan nit ñi ne ñun lañ nekkoon fañ tegoon suñ tànk ba léegi déplacé guñ ko te ñun lu ñu wax rek maanaam suñ kàddu lañ am ay gor lañ te bu ñu waxee dañuy bëgg jëfee lañ wax bu ci coobare yàlla nag bu ko yàlla dogalee ñun nag dañuy éviter waat ñi nga xam ne ñoo nekk PDS yëpp niñ waxee woon ca sama xayra ak responsable yëpp ne Saliou Dieng déclaré nañ ko persona non grata ci département Mbacké ba léegi dañ koy maintenir te combat boobu ba léegi ñoo ngi ci te jooyaguñ ci Saliou bis bu duggee Touba Mbacké fii danañ régler ses comptes parachutage yi muy def ak schéma yi muy teg ci législative yeeg yooyu yëpp comme ni ko gars yi junjee ndax buñ ko bàyyee département bi rek da ngeen gis ay député yoo xam ne maanaam mosuñu organiser réunion fii ci département Mbacké am na lu mu jot a tànn du ma ci ñëwaat li ci passé waaye lii ñëw ci kanam moo ëpp solo ndax parti bi dafa jëm ci élection ñu war a tànn ñoo xam ne ñooy doy askan wi te booy tànn ab député da ngay tànn koo xam ne day jege askan wi pour xam de doléance askan wi loolu nag ñoo ngi ci woowaa parti bi di ci woo Karim Wade mu jël ci ay mesures ndax Saliou moom tant que moo ngi diriger structure parti bi jàpp nañ ne parti bi du bouger te day gën a reculer li ci des nag mooy dañuy rafetlu bu baax suñu naataango yi li ñu wax ci mu union des karimistes authentiques bi ñu doon mettre sur pied tey jii muy loo xam ne day ñëw ànd ak mbégte ndax soxla nañ union boo xam ne day liggéey ngir parti bi soxla nañ ay nit ñoo xam ne bu ñu waxee ñu xam ne ñii dañoo mouiller le maillot sur le terrain kon donc loolu bu ñu gisee ñoom Fallou ñoom Fatkine ñoom Mouchelo ñoom Jaabi ñoom ñëpp dañuy kontaan ci ñoom xam ne ñiikat kat bu ñu leen déggee dëkk bi waa PDS ca kaw duñ ci am luñ ci tiit duñ ci am luñ ci ŋàññi te ñii ñi ma gis nii fii képp koo xam ne tànn nañ man dama koy d'accord ndax xam naa liñ mën xam naa li ñuy def ci terrain bi xam naa li ñuy daj ndax jaral leen loo xam ne man sax jaralu ma ko. ñun duñ ay ndaw Saliou Dieng ñun ndawi Karim Wade lañ ñun Karim Wade lañ gëm mais ñun gëmuñ Saliou Dieng. ndax ñun Saliou Dieng li ko Karim Wade dénk matewu ko li ko Karim Wade dénk tëddeewu ci njaaxaanaay day par parparloo li nga xam ne nag keroog defoon nañ ko usiteel ñun ñëpp ñu daje ci wàllu politique dañ ko mayatul mu teg tànkam ci département bi wala parti bi buñ ko fi yabalatee luñ gis ñoo ko def ndax nit boo koy tànn pour mu jiite lu toll ni ay mouvement dafa war a mën a tëddee njaaxaanaay wala muy yamale fekkee loolu mënu ko la war mooy ñu jëlee ko fa ndax département yëpp yàq na ko beneen bi ci des parti bi ak kilifa yi ko ŋànk nekk ci parti bi département bu nekk xam nañ na muy doxee département Mbacké nag dafa spécial ndax dëkk bi nga xamante ni moom la moom la boot léppam dafa spécial muy Touba kon luñ fiy def ci wàllu politique waluñ koo yamale ak yeneen département yi ndax loolu yàlla defu ko Touba dafa spécial te département Mbacké dafa boot Touba kon nañu bu ñuy jëlati benn décision ak mbir mu mën a doon ci diggante Touba ak Mbacké nañ bàyyi ñëpp a dëkk ñu waxtaan ci seen biir ndax département bi dafa spécial ñun nag comme ni ma ko waxee woon ci commencement bi rek duñ ay ndawi duñ ay ay ay ndawi Saliou Dieng ñun ay karimiste lañ Karim Meïssa Wade lañ gëm élection yi ñu dëgmal ci wàllu parrainage bi lépp loo xam ni parti bi soxla na ko ci parrainage ñun union des karimistes authentiques département bi duñ fi fëgg kenn di dem ci moom ni ko duñu bëgg nga parrainel ñu Karim Wade muy lànk fu ñu dem fu nekk luñ fi soxla ci parenage bu leen neexee mën nañ ñëw ci département bi ñu ñu parrainel leen ko